waa asalaamaaleykum wa rahmatullah man la soxna roqee fii ci Grèce ginnaaw bi ma nuyoo àdduna bi yépp monde entier maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci sangu-sang yi di wone sama naqar ndax tey le 30 décembre tey lañ naroon a dem fee si parcelle euh, investir suñu leader muy Seydina Ousmane Sonko mu sell mi moom de lañ naroon muy tey la 30 décembre 2023 mais ñi nga xamante ne duñu tàyyi duñu sonn ba tey ni duñ ko fi defe ñu toog kenn ku ne sa saal fas ko yéenee investir man Rokhaya Niang Grèce maa ngi investir suñu leader Seydina usmaan Sonko mu sell mi dellu nag di sant yàlla bu baax di ñaan yàlla seen pexe yàlla bu mu àgg ci daraja yonent bu tedd ba sa na day yàgg nag te yoon bi dina gudd waaye dinañ àgg kenn mënu ci dara laa kuliyaar yàlla nañ yàlla defal jàmm te ñu fekke te tal ko 2024 lii laa Ousmane Sonko si kanam su lu baax yàlla rek lañ la bàyyeel moom mi la yoroon bopp ba tey moom lañ la bàyyeel jërëjëf jërëjëf